François Gomis mu ngi noonu ak pakala bu mbuur ndeysaan François Gomis ak pakala bu mbuur ñu ngi noonu ci diggi géew bi arbitre bi sifflé na mbokk yi François moo leen féete bu mbuur moo leen ndijoor ñu ngay leewatoo ndeysaan li traditionnel bu Diaks Production arène nationale mise bi 10 millions la ponkal yaa ngay dem ponkal yaa ngay génn da ngay jàppante déet ndeysaan Franc daw na jël tànk ba takk na bañ na plan plaqué na ko Franc plaqué na ko dafa am doole macha allah xale bi daa am doole dafa am doole ñu ngi ci quart de finale yi poids lourd élimine François Gomis ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas jàppante na ñaari xale yi ndeysaan lii mooy làmb ndeysaan ñaari xale yu tolloo doole Serigne Ndiaye ak Franc Franc jàpp na ci téere tànk ba dagg na ndeysaan ma ngay xëcc téere yi di dagg benn par benn ndeysaan ma ngay dagg téere ya ma ngay dagg téere ya lamb ku nekk ngay fàqat sa téere morom di dagg di sànni ndeysaan ñoom ñaar Elimine François Gomis ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ndeysaan gàllaaj ya dagg na mos nañoo bëre arène defet bi njëkk ndeysaan bu Serigne Ndiaye am ci faas Franc mi moo ko daan ndeysaan jàppante nañ Serigne Ndiaye daw na jël ko ña ngay nattante doole ragal naa du doon lamb ju yomb quart de finale Jax Production arène nationale ndeysaan ña nga noonu ba tay Franc bëgg naa jàpp wër na ko ndomba Serigne Ndiaye bañ na ndaysaan ndaysaan ndaysaan maa ngi damm baaraam yi rocc na ko ndaysaan ñaari xale yi ba tey ngi ci làmb ji sëñ Basirou Elimine François Gomis ak Fëriñ Njaay numéro 2 bu Faas Franc moo leen woon ginnaaw mbokk yi Serigne Ndiaye numéro 2 moom ngeen jàkkaar loor ñaari luur quart de finale bi faw luur toog mbokk yi kii nga xamante ni mooy Serigne Ndiaye ma nga noonu jàkkaarloo waat ak yéen ba tey ndeysaan ndeysaan Cheikh Tidiane Niang mbokk yi qualifié na demi-finale ci compétition bi moom Cheikh Tidiane Niang daw na takk ndeysaan Franc takk na ko ña ngay jaayante doole ña jaay plaqué na ko war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ndomba Serigne numéro 2 nu koy def daan na ko wala déet daanaan na ko Franc daan na Serigne Ndiaye numéro 2 élimine François Gomis daan na Serigne numéro 2 oh Serigne ak comp demi-finale baa ngi noonu Caaka Faye ak Franc fële yaa ngi fay am Cheikh Tidiane Niang fëggante nañ ci bopp Caaka Faye ak Franc Franc na jëli Caaka Caaka bañ na Cheikh Tidiane ñaa mbëkkante nañ ndeysaan Caaka Faye ak Franc mu ngi bi demi-finale poids lourd Jax production 29 décembre arène nationale mbokk yi ñoom ñaar ñëpp ngemb lu noir lañ def bu ñuul waaye Caaka Fay moo leen won ginnaaw moom ngeen jàkkaar lool noonu Franc daw jëli Caaka Fay mu bañ lu muy togg ndeysaan Franc Caaka Faye Ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba ñoom ñaar Caaka ak Franc Ndeysaan Caaka Faye ak Franc ñu ci làmb ji ba tey mbokk yi Caaka Faye ak Franc arbitre bi arbitre bi sifle caaka yor na benn suuf ma ngay léemu def na ko ci xarante tànk franc yi faccax na loxo yi ndeysaan ba tey ña ngay lewaatoo ñoom ñaar franc caaka fay ndeysaan Franc daw na jëli caaka mu bañ Franc daw na caaka jël na tànk ba bañ na ndeysaan ndeysaan avertissement ndeysaan caaka fay ak Franc ba tey ca wee nga ci wetu soñ bas basiru borom mbég mbég taar mi yaa ngi fa kee nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Niang moom it ma nga ca demi-finale ba ndeysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey caaka fay ak franc mbokk yi caaka fay ak franc Caaka Faye ak Franc Caaka Faye ak Franc ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba tey Caaka ak Franc ndeysaan ñu ngi ci compétition bi Caaka ak Franc ba tey te wàll bee Cheikh Tidiane ñaa ma ngi fay bëre ndeysaan caaka fay ak Franc jàppante nañ caaka fay ak Franc jàppante nañ ku ne ma nga sa morom di ko déglu ndax na compétition bi doo ba yegg demi-finale ngay asaaloo sa combat da ngay def ndànk rek boo génn ci fi may waxe ak yow stratégie rek moo la ci mën a génnee Caaka fay ak Franc mbokk yi ba tay ñu ngi ci compétition bi Caaka fay ak Franc ndeysaan Cheikh Tidiane caxabal na Cheikh Tidiane mbot na daan na Cheikh Tidiane ñaa dem na final Cheikh Tidiane Niang dem na final <laughs> réer na Cheikh Tidiane Niang réer na ndeysaan Cheikh Tidiane Niang réer na dem na final Cheikh Tidiane Niang qualifié en finale bravo Cheikh Tidiane Niang xale la boo xamante ne am na jom bokk na ci compétition bi ndeysaan oh ñu ngi ci wàll wee diggante caaka fay ak Franc hey lamb caaka fay ak Franc ku daan dem final Cheikh Tidiane Niang Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na ba ñu ngi ci compétition bi caaka fay ak Franc ña ngay lewaatoo demi-finale poids lourd arène nationale Jax production mbokk yi 29 décembre 2019 ndeysaan mise bi 10 millions la teg 10 millions du caaxaan ku ko dégg ngay champion ci làmb am kàttan am wér war ngaa mën a ñëw ni say morom li ñaaw mooy ñàkk bañ bokk ci compétition bi caaka fay wër nañ ko ndomba Franc wër na ndomba caaka fay Franc wër na ndomba caaka fay Franc wër na ndomba caaka fay Franc nar daan na ko Franc qualifié na final Franc qualifié na final ak say am di jàmm ak say adversaire yàlla def ba nga dem final njàmbaar la wala ndimbalu suñu borom. waaw ñaar yëpp la bàyyi jiili ñaar yëpp la parce que borom bi la may wër ak tal nga nekk fekk say morom ak say maas ngeen bokk li ngeen soxla bokk li ngeen di ñaan yàlla jagleel leen ko ngeen war a finalu ndimbalu suñu borom la mais ak njàmbaar moo ci euh, moo ci moo ci fees dell parce ñi fi nekk yëpp ay góor la yàlla lañ. Tidiane jël na ko génn na saako yi eh, Cheikh Tidiane sàcc na ko jël tànk ba Cheikh Tidiane ak Franc élimine François Gomis ak Cheikh Tidiane Cheikh daw na jëli ko bañ na Franc Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane taxabal na ko mu bañ Franc ndeysaan final bi ndeysaan Cheikh Tidiane moo ngem moo ngem lu xonq daw jëlaat na ko du ñàkk jël nañ tànk ba rëcc na oh! ñaari xale yaa ngi noonu ña nga nekk rek Cheikh daw na jël ko mu bañ ndeysaan élimine François Gomis ak Cheikh Tidiane Niang ndaysaan ñu ngi ci compétition bi ba tey ndaysaan ñu ngi bi ba ñoom ñaar ñu ngi ci digg géew bi ndeysaan ña nga noonu cey lamb production arène ñaari mbëru simple ñaari mbëru waada ñaari mbër yoo xamante ne fu ñu duggee ci làmb nga xam ne ay borom jom lañ muy Cheikh Tidiane muy François Gomis Cheikh Tidiane daw na jëlaat ba déet ma nga biit bañ na Cheikh Tidiane a koy fàqat tibb na suuf Cheikh Tidiane élimine France Franc daan na ñaa Franc daan na ñaa ñaa daan na Cheikh Tidiane ñaa cey lamb Franc daan na Cheikh Tidiane ñaa